amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen yéen ñu ñu tawlu ci 5M Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile jotaayu xibaar yi dañ koy jukki rekk daal di koy tàmbali ak Idrissa Seck moom mi nga xam ni euh, bëggul bàyyi kile di Ousmane Sonko ginnaaw rekk kàddu yu ñaaw yi nga xam ni euh, moomee nag Ousmane Sonko yëkkati woon na ko rek daal di koy tekk ci leader bu réew mi lee mu mel ni loolee. tax na rek Idrissa Seck moom jamono ji jaaxle na loolu jëm ci maire bu Ziguinchor ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci yenn bërëbu taskatu xibaar yi nekk foofe ca bitim réew BNN ak The Africa Report cité ak le journal L'Info ki fi nekkoon nag jëwriñ bu njëkk moom nag daal dinay jël ñaari rekk américain yoo xam ni dañuy xeex càq ak yelleefu doomu foofe ca Washington ginnaaw nag lu jëm ci wàllu nag soqaliku loolee mu jaaxal ko itam jëm ci ñetteelu mandat bi nga xam ne ab jafe-jafe jëm ci wàllu juridique bi ci Ousmane Sonko mu mel ni situation boobe itam jaaxal ko bu baax a baax moo waral moomee nag di Idrissa Seck fi mu nekk nii daal dinay taxaw ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati woon nañ ko ñoom ñaar rek daal di koy jokkalante mu daal di jar rek ci taskatu xibaar yi lee moom Idrissa Seck daal di nay weddi nag lu jëm ci loole Ousmane Sonko ndax daje woon na ak moom nag ci biiru weeru koor gi